jërë ngeen jëf mbokk internet Actubuzz jërë ngeen jëf mbokki àdduna ñu amati mbégte kontaan bu baax a baax a baax ñu amati mbégte tamit nag di dalal ki nga xamante ne mooy Sëñ Cissé ñu fas yéene waxtaan tey ci leneen ak yi nga xamante ne tey ci yeneen ponk tey nag waxtaan bi tey naa la waxtaan bi nga xam ne lu am njëriñ la ci côté li nga xamante ne mooy ci côté ñaan parce que tey Sëñ Cissé tey ñu bari no mën nañ ko tey ci côté li nga xamante ne mooy ci côté ñaan yi am solo yi nga xamante ne tey mu ngi koy def ci réew mi ak fu ne ci àdduna bi tey ñu baree baree baree bari di jokko ak moom ci nga xamante ci côté liggéey bi nga xamante mu ngi koy def dañu bàyyi Sëñ Cissé mu nuyoo ñu daal di tàmbali li nga xamante ne mooy liggéey bi nga xamante Sëñ Cissé tey indil nañu ko ci li nga xamante ne mooy fii ci bës naa la teew leen vidéo yi di ko déglu di ngeen si am li nga xamante ne tey luñ am njëriñ lool lool ñu ngi lay nuyu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim mbokki jullit mbokki taalibe ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di ñaan yàlla tamit kàddu gi fekk leen ci jàmm di ñaan tamit ñu ñaan ñu si jàmm ak salaam noonu lañ def di jiite ci nuyoo Serigne Mountakha Bassirou yàlla yàggal ko fi lool tiijaan xaadir Laayeen Ñaseen ñëpp yàlla bàyyi leen fi sunu kanam mhm. noonu la ñuy def di ñaanal waa bitim réew muudu muudu yeeg sunu yaay sunu rakk yeeg sunu mag yeeg yëpp yàlla def leen tawfeex ba ñibbi si jàmm mhm. di ñaan tamit yàlla def Sénégal gi jàmm sax fi jàmm yàgg fee am ci barke Seexul Xadim ci barke mag ñu baax ñi mhm. ñoo ngi nuyu ñëpp di leen nuyu yéen waa Actubuzz bu baax a baax jërëjëf sëñ Cissé tey nag waxtaan bi xam naa ne dañuy sóobu rek dugg ci li nga xamante ne tey mooy ci mbiru mu ñaan tey sëñ Cissé ñu gis que ne li nga xamante ne mooy euh, tëng ay siwo ak benn li nga xamante ne mooy ay leket tey lan mooy secret bi nga xamante ne tey nga fas yéene woon li nga xamante mooy àdduna tuuti ci côté li nga xamante ne mooy si côté ñaan sëñ Cissé waaw xam nga ñaan moom lenn la dafa day am loo xam ne moom faaw nga won ko nit ñi mm-hmm. ngir nit ñi mën a xam jëmmi ñaan gi ci lan lay dox mm-hmm. loolu moo tax te jii ñu indi leen tuuti rek ci bëgg leen a woon ñaari ñaan yoo xam ni mm-hmm. dañ leen kaa bëgg woon pour ngeen ngeen gis ko mm-hmm. bii ci njëkk nii mm-hmm. lii ngay gis xam nga ni ñax la waaw wante ñax mi nag daa am ci nawet bi waxtuun koy wute ci nawet bi ak nawet bi diiran fu muy toll ci nawet bi lañ koy wute te du duñ dem ci ay tool rek dagg ko daa am màkkaan moo xam fi koy dagg spécial lii nag ci wàllum ubbee ubbeeku rek ci lay dox ak bayre wàllum ubbeeku ak bayre ci lay dox moom mii nga gis nii bis boo ko amee lum tuuti tuuti lii nii rek lum tuuti tuuti lépp loo xam ne yaa ngi koy wut ci àddina ci wàllu wërsëg wala bayre suñu borom mën na la kaa defal moo tax kon dama leen koy war nga xam ne lii samay show la yoo xam ne ci laay sango ci laay def ay nit ay nit ñi tamit moo tax ma koy wone pour ñëpp gis ko kon bismillah gis nga ko gis nga ko nii daanaka nag boo gisee da yaakaar ni ñaxum kii la wante du ñax yi nii hmm. nga xam ni day ànd ak xorom amalaat ma beneen hmm. nga xam ne xorom bi moom lu mu saf lu nekk rek moo gën mais si damay gis say xeetu ubbeeku yi ñaan ngay def damay gis ne yow nekk ki nga xamante ne man am sëñ bu ne damay dem foofu fu ne dañuy dem di xool mais yii man yow rek yaa koy def. waaw déggoo li ma la daanaka dama lay wax ni la sama sama xam-xam yi may présenté. wala client yi may seetaan. Mhm. yombul nga gis ko feneen. Ah, xam-xami làqulaayar yoo xam ne xam-xami mag la lii koo gis xam-xam xam-xamu mag la doo xam-xami ndaw yi doo xam-xamu xale xam-xamu mag la ba ci boo gisee bayre yenn saa yi dana ci ci ci parfum mhm. euh, nit ki dana dina am bayra te du xam nan la bayram di doxe ci wàllum parfum mhm. dafa am xeeti bayre yoo xam ni parfum bi lu seer seer seer moo gën ca bayra ba ay audi seer yi jël ay deux cent mille deux cent cinquante mille cent mille yooyu lu mu seer seer moo gën ndax am na xeeti bayra yoo xam ne jëmmi parfum bi lu mu neex neex mm-hmm. moom mooy attirer nit ñi ci ci ci diggante ak doomu aadama yi waaw boo parfum romb gis nga xeet gi koo romb dana ah diw kat parfum bi neex na mm-hmm. noonu lay mel nag ci bayra bi ba jiwaande jëmmi kii bii moom mm-hmm. parfum yi lay àndal moom parfum saafara yi ci lay àndal jëmmi kii bi parfum saafara yi ci lay àndal boo defee nii nag ba pare yaa ngi xool levant bi nga xam dangay ngay cibb ci levant bi tey jii sot waaw ah, def ni sot léegi nag gis nga ko kon nii rek lay demee hmm. lii nag bis boo ko defaree ba pare giñ naa ko sëñ Tuubaa mi ma yaakaar jëmmi ubbeeku moom doomu aadama mënulaa tee ba nga ubbeeku ku la tee ubbeeku yàlla la mu yàllaay dogal nii doo ubbeeku wante nit liggéey la moom ci wàllu wërsëg tëj sa wërsëg mm-hmm. jeex na abadan nit ki lum kale kale kale kale kale kale wala nit ki lum ñàkk wërsëg ñàkk wërsëg mm-hmm. boo sango sangaay gi say buntu ubbeeku mm-hmm. lii moom képp koo xam ne def nga ko ci wàllu ubbeeku lay dox maa ngi koy may ñëpp Modou Modou yeeg ñëpp laa koy may. waa ñax mi. xam nga ñax mi du xam ñax mi du du ñaxum neen. boo gisee nga xam ne bokkut ak ñax yi ndax boo ko defee ci soo bi taf taf day changé couleur. waaw day changé couleur ndox bi jëmmi ñax mi moo koy changé kon nga xam ne ñax mi du ñaxum neen du dangay dem ci àll ba la wutim ñax. du lool de. ngante dafa nekk ubbi ubbigaay goo xam ne dafa am solo lool ci nawet bi benn jour lañ koy wut ci nawet bi nawet bu ne benn jour lañ ko ci wut. léegi nag boo ko ci wutee nag yow yaa koy dajale di ci comp par ndànk ndànk nga xam ne te ji ku ma liggéey sax daanaka li li ma lay compal bu ma la ko wonee da koy xeeb mm. wante saa boo ko defee da nga gis njariñ mm. boo boo ko gone da boo ko xoolee rek da ci gis njariñ moo waxaat leen beneen boo xam ne ubbikaay kese la moom ubbikaay kese mm-hmm. bii moom si mbirum ubbeeku lañ ñëw te moom ma ciy wax loo xam ne ci wàllum alal alal ci lay dox alal kese kese kese kese ci lay dox moom laa leen waxan un jour man leen gis nga lii comp bu ndaw xaalis bu weex taal laa koy defar ah? ndax dafa nekk liggéey boo xam ne boo defee fayeeku lii nii saa boo ko defee gis résultat bii sunguf bii jooni jooni la jooni jooni la lii nga ko gis nii jooni jooni la mooy saa boo defee da ngay fayeeku kii doo ko xëy laal te te musoo dara barki Sëñ Fàllu Mbàkke loo ci def lu nekk boo xëyee suba da nga mus lu ko ëpp nii loo ci def lu nekk boo xëyee suba da nga mus ko ëpp sunguf bii nag sunguf la ànd ak ay doomi xaal yeneen ak yeneen ak yeneen ñu boole jaxase ko dëbb ko ñu dëbb ko liggéey ci liggéey bu am solo moom mii day ànd ak xaalis waa ne sangaay xaalis la xaalis lay àndal mm. bu ma juumul yaakaar naa yor naa fi xaalis mm. ah, gis nga xam nga am njàngale day leer looy def lu nekk danga koy njëkk ci sa bopp nit ñi mën a kii xam nga lii tey jii ni cent deux cent trois cent quatre cent cinq cent mille la mm-hmm. xam nga 500000 li gis nga ko. man sëñ Cissé maa ngi ni dugal ko ci biir. gis nga sangat gi. Mhm. nee naa la abu man ngaa dugg ci internet bi wala nga dem fu baree bari ci réew yi doo ko gis sangat gi moom moo efficace lool lool lool ci wàllu wërsëgu doomu aadama bi mhm. nit ki lu mu tëjee tëjee tëjee ba amatut ni rab mënta amati dara mhm. walla liggéey bu mu aman mu yàqu wala tey jii fu mu jëm du baax ci wàllu wërsëg bii boo ko sangoo da ngay ubbeeku bii lim boo ci def bala ngaa tëddaat suñu borom dina doublé lim bi jox la ko mhm. waaw dafa laxas dafa xaw a laxas ak mbiri jinne da cee nekk xeet yooyu da cee nekk wante la ca nekk du ma ko leeral ndax ëllëg nit day génne ab secret taxaw ci télé bi laal say sa laal say say mbir ndax bari na am na xam-xam ne saa ma ko présenté dinaa gis nit def émission laal ci samay wax Mm-hmm. te loolu baaxut waaw waaw bëri na bëri na ñu koy copie waaye nag ak sant yàlla la mooy saa boo nekkee ci lu baax wala nga xërtal ci lu baax wala ngay def lu baax rek nit ji la ci roy rek ak sant la loolu lañ ñaan yàlla mm-hmm. moo gënal may wax lu bon nit ji ma ci roy may reen di fi ay ginaar di fitis ak def yëpp nit di ma ci roy ñaan ma ko yàlla ànd saga maa ngi def leen ñu ci roy rek ñaan naa ci yàlla wante gis nga fii mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi liggéey sa sag tëje mm-hmm. wala nga bëgg ci suñ borom defal lay am am say am am di gaaw di yokk mm-hmm. te mu nekk liggéey bu sell liggéey boo xam bu leew la ñëwal jëflanteeg saafara bii mm-hmm. saafara bii nii ma leen jox nii lu lew la sa xaalis bopp boo liggéey la wala bu dee amoo xaalis bi nga dem àbb benn sob bi moo xam un million ngay àbb mm. moo xam cinq cent mille ngay àbb nga def ci biir saafara bi boo ko defee ci biir saafara bi si nga sangoo ko nga xool boo paree weer xaalis bi du ci yàqu man lii chaque ma def ko dara du ci yàqu boo paree nga weer xaalis bi nga teg boo ci amee loo ciy génne nga génne ko ci boo ci amul nga nga jëlaat xaalis wala boo boo doon da nga kaa àbb ko ba mboow nga delluwaat borom mm-hmm. wàññiwut dara xaalis bi du yàq xaalis bi te teewut ni nga koy sangoo noonu la la suñu borom di joxe wërsëg moom mii nii gis nga ko nii 500000 mm. moo nekk ci biir. lii nag du ay wax nit ñëpp tegal seen bët 500000 téeméeri junni moo nekk ci biir. sangat gi dafa doon sangat gu am doole goo xam sax du ma ko def ci soo yi ndax dama kaa nayee def ci soo yi. Mm. dama ciy comp par tuuti di ci sang moo tax nit bu ma ci dee liggéey tamit lama la cay dox du bari wante saa bu ma la ci waxee di nga ma laajaat sëñ bi sangat googu soxlawaat naa ko ndax dafa am doole. Mm-hmm. jërëjëf Sey Cissé tey li nga xamante ne dañu indiwoon ci côté ñaar jigéen côté cangat yi mais cangat yi day toujours ay kaaraange parce que waa xam nga kaaraange moom wërsëg moom jërta wutal kaaraange gu bari. Hmm. ndax boo ko wutalee kaaraange gu bari day tëj doomu bi. wala mu dem ba fatt bunt bi ba lim waroon na am doomu aadama du am ndax wërsëg mooy dem ba kale ko. damay wax ni la saa boo dee sangoo kaaraange mujj wërsëg. saa boo dee sangoo kaaraange yu bari mm-hmm. wutal wërsëg ubbikaay yu am doole nga koy sangoo sinon kaaraange yee mën naa tëj say mbir mm-hmm. parfois nga gis koo xam ne day tëjee nga jàpp ne dafa tëjee tëjewul de nit liggéeyu ko de moom moo jàpp kaaraange di sangu di sangu te amul ubbikaay gu am doole gu ko mën a ubbi comme genre ubbikaay yu mel ni wala gii mm-hmm. léegi nag yooyu faaw ñu bàyyi ci xel bu dee ci wàllu bayre bayre day dem ba ànd kaaraange bari na bayre yoo xam ne ay kaaraange lay àndal yenn bayre yoo xam dañ koy mooñaale ak kaaraange am na bayre yoo xam ne ci bayre kese lay dox ak wërsëg amul kaaraange mm-hmm. wante saa buñ la ko dee jox dañ lay jox kaaraange ni la sangool kaaraange bi ba pare mm-hmm. mm-hmm. xam ne tey ji bu la bu la doomu aadama wuysee wala li nga bëgg bu la wuysee danañ mën a toog te doo am benn jafe-jafe doo am benn gàllankoor loolu mooy ñaan dangay feexe ba xam qualité yi ñaan yi lii bu ma ko defee lii la may jural lii bu ma ko defee ndax dinaa ci am ndam lool la wante parfois ngi sëriñ jox nit ab bayre ne ko sangoo ko ba pare mujjee kaaraange loolu nag mooy andi ay jafe-jafe ba bu ko doomu aadama wuysee du du du leen mën a téye du leen mën a téye day fayaat faaw ñu bàyyi xel ci yooyu jërëjëf Sey Cissé kàddu yooyu am na solo li ñuy léegi-léegi ci ci mbirum faj ak ñaan ak yeneen ak yeneen et cetera ci côté waaw noob moom damaa dem ba sax émission yi dama ko ci kiyande wante noob moom damay wax ni la képp koo xam ne suñ borom jubóole la na pour ñu liggéey si wàllum noob ak yeneen ak yeneen si kàttanu yàlla ndax man lépp lu may wax yàlla laay commencé yàlla laay eggale ndax ab jullit laa taalibe suñ Tuubaa la man yàlla rek lay commencé ci laay jeexal wante képp koo xam ne suñ borom boole na la ñu boole la ak man wala nga liggéey ak man rek bu soobee yàlla ci fànn gune ak ak noob ak yëpp si kàttanu yàlla suñu borom moom bu ma xoolee ne lii mën naa sotti dama naa la mën naa sotti bu dee du ma ko saafara dama naa lii ma ko saafara gis nga des fois mën nga maa ñaan loo ci sa wàllu wërsëg te naa ñaan ci wërsëg waaye boo gisee mën naa laa gàntal gàntal gi ma lay gàntal damaa xam ne lii du man maa ko a faj ah. du ñàkk man de damaa xam ne lii waruma kaa faj bu ko defee ne dama lay xoolee solution wala mu xoolal la feneen bu dee kiiw ma ma bàyyi la nga dem ci leneen ak leneen wante noob gi moom am nañ ci noob yoo xam ni dafa bari ay façon ndax bari na ci noob waxan yoo xam ni daanaka diiran bi du yàgg wante daanaka eh, képp koo xam ni am nga sa jëkkër problème mm-hmm. wala nga am sa soxna problème mm-hmm. wala nga bëgg nit ñu ne du na ko may wala nga bëgganteeg góor ñu ne duñ ko may wala ngay bëgganteeg tubaab wala muy njaago wala muy joolaa mm-hmm. ak nit ku mën a nekk mm-hmm. buñ xoolee ba xam ne lii mën naa sotti ci kàttanu yàlla buñ la ko liggéeyee dinañ toog diran bu boo xam ne tey du yàgg suñ borom saafara lool mm-hmm. kooku moom dañ ci am xam yu wér péng péng péng yu leer nañ lañ ci am yooyu moom bu soobee yàlla buñ la ko liggéeyee la moom wax dëgg yàlla tëddal te ànd ak xel mu dal bu dee da ngay xëccoo jigéen nga xam tey ji loolu moo gën a euh, xew ci jamono ji nga xam ne tey jii nii damay wax ni jamaaleeg muudu muudu moo gën a metti waaye nag muudu muudu yi tamit dañuy jamaale ci benn affaire waaye danañ koy mujj ñàkk lu koy ñàkk muy dañuy ñëw proposé xaalis ki ni jamaalee nekk Sénégal nag moom di dox ci gàllaaj waaw léegi nag gàllaaj googu nag mooy dem ba yàq diggante mag ndaw sa waaw bari na damay damay dégg ñu bari naa jamaale jamaale ak muudu muudu daa metti ndax ñoom xaalis leen di proposé ne ki nekk senegal nag moom gàllaaj lay proposé ndax ma gàllaaj du moroomu xaalis waaw gàllaaj leneen la détourné xelu jàmbur ba boo ko tegalam wali su xaalis tamit danaa gisuma lii moom lam gis lu nekk rek mooy ka dëkk ca adduwaas ba wala ka dëkk ca bardaas wala kay réer a mbuum wala kay réer a ceeb kese lay gis du xool kii réer ay sandis wala ay leneen koo xam ne suñu borom def na la nga am ak sa soxna problème wala yeneen ak yeneen mm-hmm. si kàttanu yàlla boo ñu ci woo buñ la liggéey bu soobee yàlla sa xel sa xool dina sedd ndax bari na am ñoo xam ne yàgg nañ di def émission ci site bi wante yàgg nañ tamit di wax ci yooyu te boobu léegi suñu borom moo ngi suturaal bu baax baax daal mais si si ci jamono ji mbirum néew kàttan bari na trop ci réew mi sonal nit ñi. waa néew kàttan moom dama lay wax ni la yenn yi ci lekk la mooy lekk gi doomu aadama yi lekk nga xam ne nekk na lekk boo xam ne baaxul yooyu moom mooy feebar bu la dab feebar bu la dab nag man sëñ Cissé mënuma ko waaw mënuma kaa faj wante bi nga judduwaale wala tey jii ne bi nga xam ne rab moo la ko def moom man dama koy saafara bu soobee yàlla dama xoolee ne lii àndandoo moo la ko def wala lii dañ laa yàq liggéey la pour ngay fooy sa bopp wala nga egg ci soxna soo xam tey ji dañ cee def ay ñaan mu yàq la mm-hmm. bu soobee yàlla loolu moom buñ ci jëflantee bu soobee yàlla dana deñ néew carte moom ñaareelu mm-hmm. mooy ñu yàq la ci jabari jàmbur mm-hmm. wala ñu yàq la ci doomi jàmbur wala nga amee rab nga xam ne saa boo xëyee saa bu guddi jotee da ngay fooye sa awra ba daanu boo paree réccu ko di jooy di toroxlu après bu subaatee dala cee xittalaat nga xam ne sa soxna nee lay tëddee jekk lool macha allah wante doo xool ay awraam yow foowe sa bopp rek ngay wante yooyu moom ku ci jokkool am na pexe yoo xam ne bu la ko defee bu soobee yàlla suñ borom dana saafara loolu loolu tere ci kàttanu yàlla jërëjëf si Cissé kaddu yi am na solo xamaa mu jeex mais euh, daan laaj nag ji li nga xamante mooy le premier janvier diggante Balla Gaye ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang nag loo ci ponk boo ci taxee ak loo ci waxoon ci làmb jooju noonu lan nga ci waxat bi waaw liñ ci wax daanaka làmb jën ñëw na ñëwagul wante liñ la siy wax daal du bari mooy côté Balla Gaye la wax no na gën a defaraat toogaayam. Mm, làmb ji bu mu ko coof. te xam ne bu ko cofee mën naam lu ko metti ndax damay wax ni la boo dee boo dee boo dee xëccoo loo xam ni. benn yoon nga ko war a giiroo da koy fexe ba lump ko. maanaam may du kaa cof boo ko jofee du baax. <laughs> du baax mooy jamono jii ma na gën a defaraat toogaayam muy yaram bi. na gën a sangataat yaram bi. bu ko defut sinon man gis naa ci yeneen yoo xam ne dana doy waar ci kanam. Mm-hmm. wante du ma wax ne nag boo ñaa dakaa jekku du ma ko wax wante daal na gën a defaraat toogaayam bu baax moom Balla Gaye bu dee bëgg naa bëre la première janvier bi nag gën a defaraat toogaayam bu baax mm-hmm. ñu ne euh, ñu amoon sa am nga loo waxoon si Ousmane Sonko ñun fee yooyu ñu euh, euh, bi ko defarul mën na sax ñàkk réew mi mais gis nañ jamono ji affaire yi dafa dem ba nit da leen a soof. boo xoolee jëmmi Ousmane ko suñ borom moo ko def mu jublu doomu aadama yi suñ borom moo def doomu aadama yi bëgg ko mm. wante bëgg ko ko bëgg doomu aadama yi bëggan tamit mi ngi wàññeeku. Mm. ndax xam tax man abu man bu ma réew mépp xamee ni samay moromkat yi ñaan yépp xam ne man dama am bayre ku may yàqal ku nekk day jéem a fay samay buntu. wala tey jii dox sama digganteek bayra bi doomu aadama yi sooftal ma ci doomu xaptal ma ci doomu aadama nga xam ne doomu aadama yi day mujj ba man samay wax sax duñ ci amati njariñ duñ ci yéete waaye boo xoolee Ousmane Sonko ay mbiram jamono ji ci ginnaaw la gën a na dox ci jamono ji mm-hmm. lenn moom maa ngi ko koy wax muy ñetti yi mm-hmm. na ko maytu na maytu ñu posone ko wala ñu gàllankoore ko ba ba du dem 2024 mm-hmm. loolu moom man maa la koy wax wala ñu tëj ko ci kaso bi ñetti moom na ko moytu yéen a fi maa ngi fi ñett na ko moytu mm-hmm. bu amul dara tuuti ndimbalug yàlla ak ñaan ñetti yi faaw dina ci def benn Ousmane Sonko dama lay wax ni la dafa dafa doon koo xam ni moo gën a sonn ci Sénégal fi nit ki gën a sonn ci àddina ci Sénégal Ousmane Sonko la dama ne la Ousmane Sonko la ndax boo xoolee noonu ko suñ borom may may ko benn doomu aadama ndax Ousmane Sonko mënoo xëy suba ba ngoon te kenn du ko tudd rawatina ñiy def ñiy yàq ñiy njabar ak yeneen ak yeneen kon ndimbalu yàlla moom moo koy wàllu foofu rek kon damay wax ne la jëmmi jëmmi Moussa la taxaw woon rek nag li ma ci xam daal muy euh, na ko suñ borom gën a sàmm daal bu dee réew mi gën na ci moom yàlla na ci ànd ñett yi ma wax askan bi nañ ci bàyyi xel beneen bi ci toog muy Macky Sall na maytu ñu ko jige war ko hmm. ci lii muy xëccoog Sonko jëmmi Sonko bii mu topp nii rey ci ci boppam na maytu ay nit yu ko jige war ko ci Sonko moom président Macky Sall na maytu ay nit yu ko jige moom président Macky Sall war ko ci Sonko loolu nag du ma ci leeral lu bari wante yàggatul dara bentoo incha allah bu soobee yàlla waaw <laughs> ñoo ngi santaat ñëpp di baaluwaat àq ñëpp di wax ni daal Serigne Cissé moo ngi fi ab jullit la ab taalibe la taalibab Cheikhul Khadim la nekk koo xam ne tey jii nii àddina sépp ko saxoo ma saxoo sépp àddina sépp di ñaanal ñëpp jaam di jiite ci eh, ñaan gi rek Sëriñ Muntaxa Basiru yàlla yàggal ko fi lool te mu yor Mbàkke di ñaanal tarixa yëpp tiijaan xaadir laay ñese ñëpp maa ngi leen di ñaanal suñu borom leen fi ndax suñ mag ñooñu abu bu Sénégal jegee ñoom ñoo tax te man damaa toll foo xam ne tey jii nii man ñëpp laa yemale ñëpp laa yemale xam nga Sénégal dafa xaw a bëri yoo tey jii nii loolu la suñ Moussa Ka doon wax tey jii nii da ngay gis tar koo xam ci tarixa murid la bokk bu demee ci tarixa tiijaan daan ne ah ñun de nekkuñu si dara ñu de kafe rek lan xam ñun de ci caaxaan kese la ndekk mbir maa ngi fii mbir maa ngi tawaawoon nga gis tijaan boo xam day dem tuuba daan ne ah ñun de nekkuñu dara suñ jumaa jee nangam nangam mbir maa ngi Touba nga gis koo xam ne day jógee eh, Kaolack ah. ñëw Tiwaawan daan ne ah ñun de ay mbaxana rek la ñu kiyee ah. ñu de ci caaxaan kese la nekk nga xam ne ñooñu ay naafeq lan ñooñ nag du jeex mukk ci àddina ñooñu nag ñooy jaxase àddina nga xam ne fu ñu dem dañuy nuroog ñooña te ah. fekk na duñ ñooña ngir lan ak seytaane ak rambaaj wala luñ bëgg tey jii di seen poos wala luñ lekk moo tax ñu koy def ñooñu nag ñooy jaxase àddina si ñooy jaxase diggante kilifa yi kër diine yi ñoom ñoo koy jaxase ñooy jaxase diggante kilifa yi kilifa yi kon nan bàyyi xel ci ñooñu bu baax baax bañ leen a xajal ci suñu bopp bañ leen a xajal ci suñuy kër bañ leen a xajal ci suñu njaboot mm-hmm. kon ñoo ngi santaat ñëpp di wàcc suñu kàddu lu fi jub yàlla la lu fi dëng ñun jàmm ba xeeba la ñoo ngi ñaana waa bitim réew ñëpp sama sopp